tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo lool tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasuul mu jëmee woon ko ci kenn ci ay taalibeem muy sëriñ Mor Gaye Jolof Serigne Mor Gaye Jolof sëriñ Touba daf ko bindoon tontul bataaxal boo xam ne ni ndénkaan ya ci nekk am na solo am solo goo xam ne ni képp ku dib wala nga dib taalibe war nga koo jël def ko sa tontul bopp ngir ko jariñoo tontu li moo nekk nii ñu ko jëlee ci xikma bu sëriñ Tuubaa mu ne haasihi wasiyatun min acheikh alqadim ila sëriñ bismillahi arrahmani man la nabiya baada amma baad faqad raaytu kitaabaka wa fahimtu xitaabaka wa amuraka wa amuraka eh, ayuha al aq bi taqwallahi al azim fa inna taqwa miftaaxu kulli xayr wa mixlaaxu kulli dayrin wa xaqiqatu taqwa ijtinaabu kulli ma naha allahu anhu wa imtisaalu ma amara bihi wa alayka bi mulaasamati sunnati almuhammadiya wa bi mufaaraxati albidaati alcheytaaniya wa alayka bi birri walidayka fi kulli ma lam yakun maxsiya wa iyaaka wa iyaaka walxuquqa wa fi lxadisi saxiix falyafcal ilbaar ma chaa falan yadxul annaara walyafcal ilcaaq ma chaa falan yadxul aljanna wa alayka bil adabi fi sirri wal alaniya fa innahu baabul wusuli ila allahi taala fa kullu man kaana fawqaka fa akrimhu wa kullu man kaana taxtaka farxamhu wa kullu man kaana mislaka fajcalhu ka nafsika wala yaraaka rabbuka xaysu nahaaka wala yafqiduka xaysu amaraka wa kasrati tilaawati alqur'ani wasalaati ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Serigne tubaa dafa wax na lii ab dénkaane la bu jëm ci bu jógee ci sëriñ Touba jëm ci sëriñ moor Gay Jolof gannaaw bu tuddee yàlla sant ko itam julli ci yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne nii ab yonent du ñëw gannaawam dane ko gis naa sa mbind sa bataaxal dégg naa li nga ci wax waaye naa ngi lay digal yow mbokk mi ragal yàlla mu màgg mi ndax ragal yàlla kat mooy caabi wépp yiw waaye mooy tëj wépp ay ne ko dëggi dëggi ragal yàlla nag mooy moytu lépp lu la yàlla teral lu la yàlla tere ak topp lépp lum la mu la maa ngi lay dénkit nga taqoo sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te tàqalikoo bidaa yi nga xam ne ni ci seytaane lay jóge maa ngi lay dénkit ngay baaxee say ñaari way jur ci lépp loo xam ne ni lu neex yàlla la maa ngi lay watandikoo loo itam ngay Eh, lor say ñaari waajur maanaam nga leen di ameel àq ñëw na ci xadis bu wér ne képp koo xam ne nii de yaa ngi baaxe say waajur képp kuy baaxee ay wayjuram ci lu neex yàlla lu ko soob na ko def waaye du dugg sawara mukk waaye képp koy moy ay waajuram di leen def lu metti te topp leen di leen yoreel àq nooy def lu ko lu ko lu ko neex du dugg àjjana mukk ne ko dénk naa la itam nga taqoo dénk naa la ay teggin ci lu feeñ ak lu nëbbu ndax teggiin kat mooy buntub àgg ci sun borom tabaraka wa taala ne ko képp koo xam ne ni it moo la mag na ko teral warmal ko képp koo mag it ko yërëm képp koo maaseel it na ko def ni sa bopp bu la sa borom euh, gis mukk ci lum lay tere waaye bu la ñàkk seen mukk ci lam la digal dénk naa la nga baril jàng alquran ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy dénkaan bi kenn ku nekk rek mën na cee gis boppam ba tax na waxi sëriñ bi la dañ koy bàyyee eh, déglukat yi eh, ñu setantal ko seet li ci nekk ci ay njariñ yëpp kenn ku nekk solal ko sa bopp bu ko defee njariñ yi